ay yóbbante jàmbur nag boo taxawee télé jàllale woo ko doo nit soo amee sa problème demal ak ki nga amal problème nga réglé ko TFM se pas une télévision de réplique yooyu amu fi lu Youssou nduur déggul kon boo bëggee di wër di tontu nit ñi mën nga def erreur ndax wax du ñëpp a ko mën dañ ko arrêté nag sinon day mel ne que ñun amuñu ay administrateur yu am la ak fayda pour régler yenn problème yi ñun dëkkal nañu fu ne avant ñuy yegg si fii góor du bañ tuuma waaye nañ fekk fexe fexe ba buñ la ca gis ndax gàcce ma nag archive ru démb ak tey ñu ko doon génne kenn du gis ta lu ñaaw yaag sa njaboot waxalaguñ leen fi dara. y a des émissions yoo xam ne buñ la dénkee wareef wareef nga fa war a def buñ la fa dénkee jàkkaarloo politiquement jàkkaarloo ngay def buñ la dënkee animation sa yoon nekkul ci ay yeneen waaw. waaye nag njaga mooy ndey ji seex njaaxaanaay la tëddee ku mer bu la neexee dëpp. munoo toog ci garab nag di ko gor. mu ta ne. parce que fa nga toog di gor ka ngay gorantel baay baayam la. te gis nga nit du lekk lu dul wërsëgam ku ko fi jéem dangay ngay dee mbaa nga weeru xam nga profité wërsëgu jàmbur ak di yàqal nit lu muy def nit da ngay xëy yàlla weer la mbala nga gàtt fan mbala nga fajoo li ngay liggéey. xale bu jógee pour liggéey. mooy nangutul laaj yaayam nangutul sonal baayam dafa jël yoonu boppam mooy jeune entrepreneuriat kii de kii moo ko may sama doom Zeyna benn waaw doomu Viviane. kon bàyyi leen ku ci nekk ak la muy def ku ci nekk ak wërsëgam te ngeen bëggante ku ngeen ci àndal xam ne ànd bi senseerul mu ngi lay jam paaka gannaaw li tax ngeen di maslaa ba ko mu dem bu leen forcer relation ku la buggul ba ko il faut que ngeen wuyoo li ngeen doon Sénégal nag ku fi juddoo te yoroo jikkoy gaynde danga fee ganasi